boo bëggee ma tax ma joggi ci ni boo bëggee wax alxuraan daara déedéet da naan rek xam naa ci nangam de rek doy loo la nga am te di ko fexe yokk bët bu set ma boole ci joggiwaale ci ni la ba mu nee moo tax wax ci lu baax rek ayul waaye mokkal ko man du ma mokkal a mokkal ndax gis naa gaa yi daama ku mel ni alaaji silla mi gaa gaañu nekkoon kees rahmatullahi alayhi ñu naa am na fi waay yoo xam ne njaay la sant xaw ma ñun dañ koy tëkkaleeg man ci ay wàññi waaye dàq fi alxuraan taxul dama ci amoon lu ma foraatu rek fonkoon ko téye ko man leen bu ma kenn tëkkalee kenn laajuma ko kenn digaluma ko kenn dàkkuuruma ci di manante ci alxuraan déedéet moom nañ ko bàyyi noonu rek bu ngeen ëngaslee ba indi ko fii itam nag rek bu ñëwee kooka fu ma fekk bu yaba rek nu tàmbali bu mu indiw kayit bu mu indi dara na ñëw rek mu wax li mu xam bu ñëwee bu dee suba nangu naa mu tàmbali ba tisbaar dina ma fi wax loo xam ne du ma ci xam dara loolu moom leer na ma bu ñu julee tisbaar may ma gànnale ko ba ba ñuy julli timis moom it dinaa ko fi wax loo xam ne lu mu ni xam naa ko mu wax leneen bu soobee yàlla lu tiitaru man bu ma koy wax man day nuroog tiitaru ak bàkku waaye dama kontaan di gërëm yàlla du tiitaru dama koo gërëm rek bu baax ba baax na fu ma dégg ñu wax wax alxuraan rek mi mi mi ngi mel ni ku dem a dem ba sori ba defee ni kenn xamul xamu kii xamu fum mu wala tey nga fi mas dem nga dégg ñu wax ba naa cene ba sekk bala ngaa dem da ngay déglu ba xam kooku lu muy waxee cene ba sekk ci réew mooma noonu la mel ci man ci alxuraan moom ma dugal ci yéen ñi waaye bett ngeen ma ndax yàlla def na eh, may na ma juróom benn ñoo xam ne ñi wax dëgg yàlla ñett ñu jigéen ak ñett ñu góor daal ñeent ñu góor am naa ko ñu tare day fula fula ful ba mu doy li man yeesaaw ñeel ñi ñi ko neex yàlla nañ ca bokk waaw ci bokk moo tax alxuraan dama ko xaw te mu neex ma loolu waaye alaaji Abdoulaye gay mii ci kees ku ko déglu billaay ñëpp a ma saf waaye ngóor soosu daal sama xarit te jóge naa fii ba egg këram ne ko yaa neex te neex looy wax sans weer di ñaare boo boo tàmbalee dama koy denc dama koy denc ba nga àggal ma fay ko ba bëccëg bi defuma dara te lee damay raw te ni ko mane mëne wu ko jigéen wu ma ko sax waaye ku ku ko ku ko déglu suba cuuy ak kay leer kaar man bu ma rawee day mel ni sama adduna daa tukki ndax damay damay dama moo may firil fi ne te léeg-léeg mu raw ma ci ay nit ñëw rek du ma mën a tee dem booba yooyu nag ñaari ñaar ñaar ñaar yaa ngoog nag doo làkkum ñaar waxa du lakk ñaar rabbi raaxi naa yaar lanni raaxi ñaar bàqa raaxoona ñaar musa xalfaka ñaar yulli si xaayata ñaar babba ad xaasu ñaar balla rasi ndenda ñaar fuma mi niihu ñaar latta baxdikum ñaar kàkka